bismillahi rahmaani rahim ñu ñëw ci nettalib téeméer bi ak juróom benn fukk ak ñaar sëriñ Mor Absa Lo radiallahu taala anhu mas na andi ab kaamil ci sëriñ Tuuba xaadalawo law maxtaar loxo mu ni ko ku bind kaamil bi mu ni ko Mamadu doomam sëriñ Tuuba xaadalawo law maxtaar loxo ni ko won ko ba mu ñëwee sëriñ bi ne ko yaa ko bind mu ni ko waaw sëriñ bi jox ko kayit ni ko yóbbul téere bi te bindaat juróom benn téere teg ko ci muy juróom ñaar nga andi ko keroog ba muy indi téere sëriñ Tuuba xaada la woo maxtaar la woo daa nekk ci biir néeg ba ñu yëkkatil ko bunt bu mu xaj moom muy dugal téere sëriñ bi di ko nangu ba muy juróom ñaar mu dugal boppam sëriñ bi ni ko dandu mu dugg ba jëmam xaaj Sëriñ Tuubaa xaada la wala maxta la di ubbi téere ba ubbi yépp ni ko hakasa daa di dar yaari loxoom ci boppam moom ki indi téere ba mu yàgg mu bàyyi daa koy wax mu tikki kaala gi mu takkoon te bu yaari loxoom ci suuf def ko ca ni ko seetal foo bëgg ci rëddu saa wi nga def ko fa dana la fa fekk ak lëgën ci yow mu wax ko ay kër baayam ni mu deme te moom magu fa sëriñ Tuubaa xaadalawo la maxtaaroo ni ko foo dem danaa lafa fa fekk ak la bëgg wér na lool kii li ko sëriñ bi wax ak li mu ko digal dana nu xamal ni kenn mënta jariñ nit te sonaloo ko bi xadril kaddi taktasibul maali wa man talabal ula saharal layaali taruumu almajda suma tanaamu layla laxad admaata nafsaka fi lmuhaali ba tey sëriñ bi li mu ko wax danaa la fa fekk ak lëgën ci yow danañu xamal ni murit bu nekk am na lu gën ci moom loolu moom sëriñ bi moo koy xam am na ñoo xam ni bëri alal moo leen dimbule am na ñoo xam ni néew alal moo leen dimbule am na ñoo xam ni bëri mbooloo moo leen di dimbule am ñoo xam ni néew mbooloo moo leen di dimbule moo tax li ci ak ñaan moo di ñaan lañu la tànnal wa hab lahoo jumlata ma taxtaaru lahoo wala dayka innaka al muxtaaru na nu sax dëgg ci liggéeyal ko ca na mu ko tànne ci nun faawu wallahu aalam am nañu Sëriñ Tuubaa xaada lahoo la maxtaar lahoo doon dénk ni leen bu leen def lu leen neex wax bu leen def lu leen neex lekk bu leen def fu leen neex dem lii ma leen wax bu ngeen ko defee da ngeen mucc ni Mustapha ak Fadilu mucce siiw na loolu day mel ni ku ñuy digal toog ak noppi ak doy looli nu am sëriñ bi bu ñu xoolee xam ni xéewale adduna yi bari woon na lool ci moom waaye li mu daan jëfandikoo ak li mu daan jox ak njabootam daawul bari daawul neex itam li ko waral da a bëggal la gën xéewal yi itam ni mu mën a yóbboo nit àjjana ni la ko mën a yóbboo sawara inal mubahaati ida lam tufdi ilal jinaani fali naarin tufdi naka noonu li ñuy wax mën na noo tàbbal àjjana mën naa tàbbal sawara itam naka noonu suñu jéego yi mën naa tàbbal àjjana mën naa tàbbal sawara wa kullu man lam yamna rijlayni min al hawa fadiha fi daareni li ñuy mën a dimbale bu baax moo di bu ñuy jug nu fas mu doon liggéey bi Sëriñ Tuubaa xaadala wala moxtaar loo bu nu wóoree ni fu nu war dem la lu ñuy lekk itam ñuy dem ba aaji woo ko lool bu nu koy lekk itam di ci fas ab ab liggéey li ñuy wax itam bala nu ko wax nu xool ba xam ne lu nu war la wala déet te bu nu koy wax nu ci fas ab liggéey lii bu nu koy taqoo dana nu mucc yàlla na nu mucc ci barke borom Tuubaa xaadala walaw maxtaara lahoo wallahu alam sëriñ Mahib Gueye radiallahu taala anhu mas naa ànd ak sëriñ Masamba Mbàkke radiallahu taala anhu ñëw ci sëriñ Tuuba xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo muy jàng waaye sëriñ bi bayit wu yegg muy yéemu naan ndeke wax na lii siiw na loolu dana nu gën a xamal ni sëriñ bi ay mbindam ci yàlla subhanahu wa taala la bàyyi koo jaare ci moom noonu la ko binde ak tubu naa xilan من اللوح ومن خلمه وفي حروفه لم أمن بتا يونت بي صلى الله تعالى عليه باري وسلم وسلم ما سني جانلو القران كين سي صحابه رضي الله تعالى عنهم بامو اكسي وجئنا بك على هؤلاء الشهداء muy joy joy yu metti ba koko taxawal njang ma diye mu ci mom wallahu aalam serigne touba khadalahu law makhtaralahu mas naa wax moodu xari mu ni ko mbàkke sëriñ bi ni ko fii mu ne mënuma wax ak yéen dara bu ma bëggee wax ak yéen damay ñëw ba fi yéen mayor melo wu ma mën a waxee ak yéen ana loolu lu ko waral yéen aadama mujj bi mooy seen maam te man aadama mu njëkk ma ba ñu koy tën mooy biñ koy bind ci ban maa ko teewe lii bi ko sëriñ bi di wax mi ngi yor baraada di tàngal ataaya di ki def suukar su bari daa di xool sëriñ Moodu Xarim Mbàkke radiallahu taala ni ko xam naa yaa ngi wax ci sam xel rek naa ñoo ko bëgg suukar waaye du ak bëgg suukar yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa ba dara safatul fi man di xëy mbaraada ba ba mu yàgg mu duy ci ab kaas yëkkati ko xool ko ni ko Moodu Xari kaas bi mën naa cee def loo xam ni boo ko manoon def ko mu ni ko lu mu doon mbàkke sëriñ tuuba xaada lawo laahu maxtaara lawo ni ko mën naa cee def loo xam ni bu ma ko ci defoon naan ko diirug banni israil bis bu nekk junni dee ci ñoom ci boroom daraja ya mu ni ko def ko ci naan ko mbaa nga jox ma ko ma naan ko sëriñ tuuba xaada lawo laahu maxtaara ko déedéet ku sëf sa sa sa cëf ka xëy na giléem wala li ñuy sëf te muy dund mu ne ko ku sëf ka dem ak moom ba ca àll ba mele ko tax nga rey ko da nga yanu sëf ba maa nga yendu àll moo do xari dikk leen ma wax leen te añal leen ak li dox seen diggante ak seen boroom na ngeen di julli julli juróom te bañ koo yaakaar na ngeen koy def ngir ndigal waaye seeni julli du leen jariñ dara ca bis ba yowmal xiyaam daa ñu fi ñëw sama gannaaw te bëgg ma lool su boobaa julli yii laay fop def leen ab yéegukaay te mooy lu mel ni ab pom ci am ndox wala bag laay def ab yéegukaay sama digganteeg ñoom ñu jaare ca ba fi man ma dimbali leen moo du xëri benn dëkk benn ja ja mooy marché menn njaay mooy marchandise benn jëndkat ku xàcc ci moom doo jaral mukk moo du ñii bu ngeen fekkee ñu julli bu leen ca dugg waaye yéen bu ngeen di julli bu ñu ca bokkee bu leen leen wax dara bu ñu leen defal dara bu ñu leen jiite mukk bu ñu leen julleel am néew bu ñu leen rendeel am tabaski bu ñu leen tuddal seeni doom ngir ñooñi yàlla subhanahu wa ak yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa ma seeni jëf amuñu ci soxla wér na ginnaaw bi nu xamee ni Sëriñ Tuubaa xaadalawu law maxtaar lowoo moo nekkal yàlla sunu boroom ci kaw suuf si wuutu itam yonente bi sallallahu taala alayhi wa sahbihi bu nu fàtte ni am na ay jagle yu bari yoo xam ni kenn mësu koo am te kenn dootu ko am illa yaqaada allahu ma lam yakuni wala yakunu abadan li mumkini jegle yooyee nag nekkul ci alxuraan nekkul itam ci yi ni ñu koy gisee ni ñuy gisee jagley yonente bi sallallahu taala alayhi ci téere yi ndax boo yoree taala anhu am na bunt boo xam ni da ci leeral yi yonente bi sañ sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi te keneen sañu naka noonu boo xoolee zoratul ansab da nga gis yu bari ci li ma wax ma kaana lakumu an tuzu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalikum kana 'inda allahi 'asima sëriñ tuba nak khadalahu law laaw maxtaar na ci ay jagleem ku ko bañ du tàbbi aljana du defal yàlla lu mu geureum ak yonenteem sallallahu taala alayhi wa sallam safaanub ku ko sopp ndegam jëf yi nuy def yépp ngërëmul yàlla subhanahu lañu ciy sàkku war na ci sëriñ bi mu nuy leeral bu baax fi ngërëmul yàlla nekk subhanahu wa taala ak fi mu nekkul ba tey loolu muy wax benn dëkk benn njaay ba wax ja jeex damay nuru ni boppam lay misaal ak diggam ak boroomam ni mu ko mayee lu baax lépp ndax lu baax weesuwul alxuraan ak hadis ak lislaam te yooyu yépp nee na yàlla may na ko ko te dootu leen nangu daanaka foo xool ci mbindam yi gis mu koy leeral lu bari lool na lil islaama inda gurbati ladal jasairi muniiru turbati nu li nuuru lisaani wal kitaab azmaana xidmati lada ahlil kitaab negam loolu am moo tax ku àndut ak moom du am dara war nañu xam ni sunu borom subhanahu wa taala mooy def di dindi te waxtu wu nekk mi ngi def di dindi kulla yawmin huwa fi sha'nin ku dul xam la muy def ak la muy dindi dala war ngay ànd ak ka koy xam wa ma kana allah li yutli'akum ala al-ghaybi ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم سرين بي وخول ني اب يوننت لا واي ليرال ني مو لين كاوي fuuf ci waxam ak mindam li muy waxit saa boroom nee ma lay wax gis nañu loolu ci mujjug nettali bi wallahu alam ñu ñëw ci nettali téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom benn sëriñ Masamba radiallahu taala anhu mas naa ñëw ci sëriñ Tuuba xaada laho la maxtaar laho bay dellu sëriñ bi laaj ko gone gu topp ci ginnaawam kan la mu ni ko doomi maxtaar anta la radiyallahu taala anuma serigne bi ni ko mi ngi jang mu nak nakal serigne bi ni nañ ma wol Modou Hawa njaay mu ñew serigne touba khadil wala lo ni ko jangalal ma alxuraan doomi maxtaar ante ji werna li doyna nu sekk ab soñu nun wajuri ci jangal alquran gone yi daanaka fii nu toll alquran ci ko amu yar doyna sekk ku ko def boo mokkalee kenn dootul la mën a yar li waral jàngi ci ko amub yar baax dalay wàll jikkoom yal na nu sax ci bëggu sëriñ bi tey gën a xam ne alxuraan mooy li mu bëggoon mooy jiitu ci dënn yi daana moytuloo itam nasaraan bi lool li ko waral nun daa am nu tax a ñëw adduna te mooy jaamu yàlla subhanahu wa taala kon war bala ñoo jëm ci lenn xam wu wér mboolem li ci aju te loolu bari na lool fi ne nu xam-xami tubaab toll xam-xami diine tol na ni képp kuy bay danga nga war a tàmbulee ci saw we bu setee nga door a bay la neen te man gisuma benn tubaab muy jiital alxuraan ak xam-xami diine ci aw làkkam ak i xam-xamam wallahu aalam sëriñ Moodu Xari Buso radiallahu taala anhu mas na ànd ak baayam di siyaar si sëriñ Tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu ba ñu jug di dellu mu ni yal na nu yàlla boole ci sa ñoñ sëriñ Tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu ni ku wax loolu ñu ni ko Moodu Xari sëriñ mi ni ko ñaan nga lu mata ñaan lu ndax mbooloo mi ci ëpp dañoo mel ni ñu ànd man te fekk ànduñoo ak man bi ma jugee di wut saa borom adduna dama topp ma gàntal ba ma ko të mooy te mooy mu tële ci man mu del ci mel ni ku marong man am ci mbooloo mi ñu gis adduna jooju daw topp ma mel ni man lañuy topp mu mel ni kuy dàq kuy dàq dara ñooñu fu adduna yam man laa yam ak ñoom siiw na والله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفع بلا درر والاني الابرار في اخرايا وانقاد لي بلا انتهى خرايا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره كنك امنا am na lu mu bëgg ci ab xolam di ko wut loolee yàlla xam na ko bu wér moo xam lu baax la moo xam lu bon la moo waaye képp ku tàmbalee jëflanteeg sa borom da nga xam ni dara ump ko te bàyyiwul dara wallahu alam sëriñ tuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo daa boole woon sëriñ xaasim ak sëriñ abdullahi doomam radiallahu taala anuma bu leen daan jox ay yére sax da leen koy boole ñu seddoo ko wér na wa min kulli shay'in xalaqna zawjayni sëriñ bi moo xam ay muridam ak li mu leen di boole waaye koo xool ci ñaar ñu mu boole danga gis ni dana nuroom moroom ma ay melo ci saahir te loolu day na sëkk wallahu aalam ñoo ci nettali téeméer bi ak juróom benn fukk ak juróom ñeent sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu maxtaar lahu nee na ndaxam moos ñaar dama jàppoon ni mucc ci dana mën a am waaye xam naa ni du mën a am gunge mooy ànd ak yéefari jahanama ak rékk ku ngëm wér na ya ayuha alladina amanu atiu allaha wa atiu rasula wala tubtilu amalakum sunu boroom subhanahu wa taala buy wax sahaba yi radiallahu taala bu leen yàq seeni jëf dana nu xamal ni jëf ju baax dana mën a yàqu ci ay wax wala ay jëf an taabata amalukum wa antum la tasxuun ba tey yonente bi salallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi nee na nit dana def lu baax di ko tudd muy wàññi ko mu koy tudd muy wàññiku ba bu ëllëgee loolee du ko fekk muy dara sëriñ bi nee li ëpp ci jëf ju baax ju ñu xam njariñam du bari bu ëllëgee is jullu ma baana lahum minhu fala yakfuru nafuhu gadan is yujtala moo tax jamono ji nu toll ku ko man di néewal say wax baax na lool ndax lu mel ni jaw bari na lool te nee ñu ku koy faral def du faatawaale ak ngëm yal na nu yàlla doole dimbule te may nu mujj gu rafet ci barkeb Sëriñ Tuuba xaada lahu allahu maxtaara lahu wallahu alam mas naa woolu Sëriñ Birama Taane radiallahu taala anhu ni ko saa borom nga jox ma sa doom ju jigéen ma jox ko sama taalube bu baax ba mu ko andee sëriñ bi ni ko xam nga ko mat siise ko yaru wér na am na ku këram masalak mu ñëw ci sëriñ Tuubaa xaadalawoo laahu maxtaar lawoo di sàkku ñaan sëriñ bi jox ko suuf ni ko dama ko def ngir dalal sam xel waaye Tuubaa noppi naa ci wér na mel na ni loolu lu mu daan wax lu bari la walaahu alam sëriñ afiyatu ñang ak sëriñ cheikh ñang ak sëriñ abdou jaddu yooli taala anhu bi ñu bindee kaamil ñoo ànd yét ko sëriñ tuuba xaada lawo laaw maxtaara lawo gànnaar ba mu ko xoolee moo lool mu sant yàlla ni leen nu ngeen def ba ñëw ñu ni ko danoo dox sëriñ tuuba xaada lawo ma lawo maxtaar a dox ñu ni ko waawaaw sëriñ bi ni leen xam naa ni seen kaamil yi ak ni ngeen def ba ñëw fii xamal na ni ma képp ku jur doom yeroo ko jàngaloo ko nit jur doom yar ko jàngal ko jox la ko da xam ni jur doom yar ko jàngal ko baax na lool seen dikki gi xamal na ma loolu siiw na gis nañu bu wér ci waxe sëriñ bi ak i jëfinam ni mësta weesu yar ak jàngale wallahu alam sëriñ basiru ak sëriñ moodu hawa balla ak sëriñ moodu faramata mbakke ak sëriñ moodu mamun ak sëriñ moodu masamba joob ak ñeneen radiallahu taala anhum daanañu sukk ci ndab loo xam ne sëriñ tuuba xaadalawoo la maxtaar lowoo moo koy tibb ci loxol boppam am na bis tuuba xaadalawoo lawoo maxtaar lowoo romb ñu sukk kenn jëfandikuwul mu laaj leen ana ku ngeen di xaar ñu wax ko ko sëriñ bi ni mu ni leen kudul muhammadul mamun bu leen ko xaarati wér na ñi ñëpp nag li ma ci seetlu mooy ku ci nekk sa way jur ci taalube sëriñ bi yu mag yi la bokk wallahu alam sëriñ xaasim mbàkke radiallahu taala anhu sëriñ tuba xaada law maxtar lahoo daana wax ci moom xaasim yubaddilu llahu sayiaatihim xasanaat siiw na li tax nu war di maanu moo lu mel nii ndax am na ci mbindeef yi ñoo xam ni seeni jëf yu yiw mën naa wuuteeg li ñuy jàppe nun jëf yu yiw wallahu alam sëriñ xaafiyatu ñang radiallahu taala anu mas naa ñëw ci sëriñ tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo ni ko gan daa am ca kër ga sëriñ bi ni ko weex na tàll wala wala tar muhammad siiw na xëy na da koy ni amul benn bàkkaar wala du koy am benn bàkkaar ci ak dundam ndax kuy door a gane adduna moom du am bàkkaar wallahu alam sëriñ tubaa xaadalawoo law maxtaaralawoo mas naa bindiloo sëriñ fàllu ak sëriñ moodu siise radiallahu taala anhuma ku ci nekk ab xaaj ci alxuraan siiw loolu jëfinu sëriñ bila la daan def lu bari ak di boole ñu bari benn kaamil ni nu ko gisee ci ginnaaw wallahu aalam sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaar lawoo mas naa jox sëriñ Muusa Xalima radiallahu taala anhum ak gone ni ko fexeel ba mu miin siiw na nee na jéem na jéem mënta weesu miin googee sëriñ bi wax wallahu aalam am na ku masa wax sëriñ tuuba xaada lahoo laaw maxtaar lahoo daa am am tudd sëriñ bi ni ko imaamu malik ma nga nee dem nañu ko ko tudde siiw na siyaar gi mu doon siyaar sëriñ bi ngir yàlla subhanahu wa moo tax sëriñ bi defal ko loolu naka noonu al imaamu shafii ak ahmad ibnu hanbal radiallahu taala anhu ñépp gis nañu ci waxe sëriñ bi muy xam ni dañu daan ñëw fi moom ak sahaba yi radiallahu taala anhum ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرسخون والله أعلم سرين حمسة جحته رضي الله تعالى عنه مسنا وخسرين توبا خاد له لو مختار له جامبار جحته رضي الله تعالى عنه دافات سرين منكم jambare jambara lumu muni ko jambare lul jambare lu jambare luma gisee gise mala koy wax domam je di jangal gone yi wala njabot gi serigne touba khadalahu la maktalu honi nañu seen ñaar fukk ak juroom ñett ci alalam andi ko ba ko andé serigne bi daadi jox serigne Amsatu ak ñaan ni ko yobbo ko jambar dana xam ni suuf si ñewna mu jug di dem sëriñ bi woowaat ko daa ñaanaat ca ñaan ga ni ko boo demee ku dend ak jàmbaar dana xam ni suuf si ñëw na mu jug mu woo ko ni ko boo demee ku fa fekkati jàmbaar dana xam ni suuf si ñëw na siiw na idi du'a yanfa'u fil xubur wa yanfa'u l xayya wa yujibul ujoor lii dañuy xamal ni ñaan day jariñ ko faatu lool di ko texeel yal na nu yàlla saxal ci ñaanal way jur ak wóllëre ak mbokk yi ak jullit ñépp wallahu alam waa kamil mas nañoo dajale ay hadiya jox ko Serigne Moussa Alima radiallahu taala anhu ngir muyit ko Serigne Touba xaada lahoo laaw maxtaar doon joxe ba mu ko joxee Serigne Touba xaada mu ni ko mbaa mu ni ko déedéet sëriñ Tuubaa xaadalewoo law maxtaaralewoo ni ko loolu ni ma la ko mën a misaale mu ngi mel ni joorug suuf gu nooy nipp goo xam ni dañ caa jaamu yàlla ba mu leer naññi am ku jóge fële yor sagari mooy yàlla di ko ko goore mooy tibb bu ñu ko tuddee day baax lool jub waaye bu ñu ko jëfee mu yàqu siiw na day mel ni ab joxe lu mu gën a am sutura gën ci naka noonu loo ko gën a xeeb ci sab xol wallahu alam lu mel ni lii ñuy def muy daayira yi man li ma gis mooy ñu ànd di liggéey te bañ a dajale alal yi ndax alal fu mu dajaloo seytaane dëkk fa te seytaane ku mu jéemal mana la dañoo war a xam ni ak ñàkk ak néew doole bokkuñ na ci yoonu tasawuf te mooy yoonu murit siyaahatu bnu maryamin wa faqru sayidina al mahmudi Amal barru wala bu ñu dajale alal itam ñu koy gaaw a jox fa saasa ka ñuy xoole sëriñ tuba xaadaloo la maxtaar loo kooka moom bu la ñuy xool nekkee ci moom dana xam fa mu koy jëmale wallahu aalam